ko téléspectateurs yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ci Lutte TV comme niñ ko tàmmoo di defee rek le 20 mai bés la nga xamante ni Modou Baye Fall borom Momo production moom moo ko tëgg combat bi mag bi grand combat bi war a dox ci diggante Boy Seye numéro 2 école de lutte ah, yaakaar naa fa la nekk ak ki nga xamante ne moom mooy Anaconda Birahim Ndiaye mu mel ne tëgg na ci yeneen combat ndax def na ci drapeau Lirou Diane mu war a dox ci diggante. Euh, Ronaldinho ak yankaw Njool Waalo ak euh, waa ji nu mu tuddee mbëru rock énergie bi Karax Karax ñoom ñaar war nañoo bari ci bés boobu noonu ah maam Faly mi nga xamante ne ay toog na ci plateau bi war a bëri ak ki nga xamante ne moom mooy Darso mel ni face à face boobu war a ñëw waxtaanee ko moo ko seq ak ki nga xamante ne moom mooy Modou Anta sans frontière maa ngi lay bégg bu baax a baax di la ziar Modou Anta bàyyi la nga nuyoo ak ngay seetaan. jërëjëf Lamine maa ngi lay jox sa wàccuwaay baax wax lay nuyu baax Mamadou Lamine di la siyaar di siyaar Mass bu ndaw si di siyaar ko si tamit ki moo géet di maam Faali di la jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu aussi tamit euh, Modou production. ñu koy jaajëfal bu baax mu jëm ci journée bu am solo aussi tamit muy lundi le 20 mai nga xam ne feet la ñu ciy waaj ci ay innovation yu am solo waa di si woo amateur yëpp di ci woo waaj diaspora bi yëpp aussi tamit di woo mbër yëpp aussi tamit si drapeau liiru jaan bi parce que tamit du waa waaye kese képp koo xamante bi ni liiru sekk naa ak yow ay teraanga rek wala am ngeen jàmm rek ñu ngi lay woo ci bis boobu nga teew si muy diggante Yankaw ak Ronaldinho aussi tamit ñu koy teg ci loxo ki nga xam mooy Laye Ndiaye bu Coens aussi tamit. Mm-hmm. macha moom tamit ñu ngi ko ciy woo bu baax parce que xam naa ne bés bi tamit bésam la te mi ngi ciy def ay affaires yu am solo. ñu ko ciy jaajëfal bu waaw Modou da ko ci delloo njukkal quoi. da ko ci tuddee drapeau wala. non tuddee ko drapeau mais nag xam naa ne. sargal comme comme téléphone moom ñëpp a ko soxlawoo. incha allah rabbi Modou dina yëkkati téléphone. da koy décorer. waaw ah, da koy décorer. macha allah dina yëkkati téléphone bu mucc ayib daal. teg ko ci loxoom incha ah, allah loolu tawféex la. Mm-hmm. loolu tawféex la ñu ngi ci félicité bu baax a baax Modou Baye Fall ci reconnaissance bu nga xamante ne am na ko. Mm-hmm. jëmale ko ci waa làmb parce que ah. Lirou Diane moom. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ci làmb la bokk. waaw kon bu fekkee di jël na drapeau drapeau bu mag du combat spécial. bu tuddee ko ko. cofu ko. walaay cofu ko combat boobu ñëpp a ko bëggoon a. Mm-hmm. waaw te ñaari bërekat di ko bëre tamit. Mm-hmm. waaw Ronaldinho ak Yankaw moom. waaw waaw drapeau bi ñëpp a ko bëggoon man mi sax bu ma ko tuddee woon ma jël parce que damay xam ne moom <laughs> làmb la joo xamante bi nii bépp amateur bu xalaat bëree ak xeex boo ñëwee di nga ko ci fekk. surtout bëre ba. waaw surtout bëre ba parce que ñoom ñaar boo dee xool ba tey seen diggante Kaw Gourdin da cee nekk te ba tey leerul. parce que kii dafa daan kaaw guddee ca digg géew ba kaaw guddee def recours muy yankaw. xaaral ma léegi borom drapeau baa ngi ci ligne bi. Ah. allo. tey liiru. liiru maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar borom drapeau bi. waaw Lamine Lamine Seck maa ngi lay yi. alhamdulilah ñoo sant yàlla bu baax a baax macha allah alhamdulilah yaa ngi en direct sur le TV ànd ak Momo production. Mhm. borom le vin. Mhm. coofu la nag da laa tuddee combat bu neex a neex ay Modou Baye Fall kenn du Modou Baye Fall. cofu la de. ah man xam loolu Modou cofu ma la Modou cofu ma daf maa yëg ay nee naa ko bil nga laal nga na ah, loolu lan la bippé na ku uh-huh. bis boobu maa ngi ciy woo ñëpp ñëpp nañ ñu Modou a Fall xew la ku amoon sa bis da nga ko wàcc. Uh-huh. waaw uh-huh. loolu moom loolu moom loolu moom loolu biti la fanaan. ndax vraiment dafa jël ay champion la ma tuddee. waaw ay champion la ma tudde na xam Ronaldo Ronaldo xam nga ne champion mag la. Ronaldinho. Ronaldinho laa wax mooy Ronaldinho. xam nga ne kooku champion bu mag la. waaw. ah waaye bari champion la ah ñuy wax mu jël la kii nu mu tuddati. Yankaaw Yankaaw. Yankaaw moom it kooku champion la def na lu ci lamb naa ko mënoon nga tuddee mënoon nga ko tuddee Mas Bantamba ak kii. ak papa bu ndaw mu ne ma nee na ne ko. <laughs> Lirou Diane mënoon nga ko tuddee Mas Bantamba ak papa ndaw combat bu. <laughs> waaw xam nga yow moom yow mooy loolu rek waaye daal xam naa ne daal Lamine. ndax baba euh, Mass Bantamba moom moo ne dafa amoon yéen a bëre sa drapeau. ndeysaan ndeysaan dëgg la dëgg la. xam nga loolu taw féex ah, waaw ne xam na ba ah am na ko fi jëloon de. kan moo ko yaa ngi eh, am na ko ko fi jëloon de. waaw te deen ko dégg ca kaw kaw man maa la wax lii. kon sa drapeau ko jël dégg daali. laa ilaha illallah di nga daali. Hmm. ah cam loolu loolu loolu fanaan. waaw biti la fanaan. sama drapeau ku ko jël ah cam kooku champion moo tax combat ba moom xam naa ne moom jour ba moom mooy dàq ci làmb yi mooy combat yëpp neex waaye sama drapeau moom xam naa ne ñaari bëri yooyu. combat xam naa ne sama drapeau ku ko jël. Mhm. ba nga dégg Balla Gaye Modou ñoom la déggee rek ñoom ñëpp da nga leen fa dégg soobu yàlla man maa la wax. Mhm. barke Serigne Bamba Mbaye. Euh, drapeau bu lu mu def ci yow tur tuddee bi léegi. waaw waaw kontaan ci rek kontaan ndax Modou ko neexoon jël ko keneen. wala mu hmm. xool borom xaalis tuddee ko ko. Hmm. comprendre nga waaye moo Modou deful loolu. Hmm. lii mu def man mu xeebu mi am nga xaalis ah, mu jël bis mu toll noonu tuddee ma ko. te pourtant am na ñu si gënoon am na ñu ko waroon a def te defuñu ko. am na ñu ko waroon def te ñu ko. wallaahi am na fu mu gën a na jekk ba parcelle. def lu mel nii ah du ma gën a ma gën a gore de. du la a gore kon bés bi de kuy sama nit maa ngi lay woo ca bis ba. bés bi dañ ci tàqari pugan. Ah, la loolu bit loolu loolu loolu loolu la loolu Lamine biti la fanaan. Hmm, hmm. loolu biti la fanaan Lamine. dëgg vraiment daal Modou Baye Fall daal li mu bëgg ci bis yàlla ko yàlla defal. loolu am na solo mais liiru démb defetu papa bi noo ko dundee. bilaay maa ngi nii këram laa jóge nii. ndeysaan. waaw xam nga Lamine. Hmm. Lamine Lamine lamin Lamine làmb dafa garaaw. bilaay bilaay. barki Serigne Saliou Mbacke làmb dafa garaaw. Lamine démb ku ma ne woon booy bi dina daanu ma weddi ko. lu tax. waaw non non xamul tax coono yi mu daj ci combat bi ndeysaan da cee daj ay coono Lamine xooy bi dem na Maroc dafa trois mois mhm. ñëw dëkkul këram dem loose ji amul ndeysaan mook benn mhm. nekk fa di dem di entraînement di dem foofu di dallu lekkam fa la koy fekk lépp fa la koy fekk mhm. comprendre su ñëwee entraînement pour mu daanu sax man problème dama man damay ñëw ne rek daal ko dal si koom da ko tubaarikàlla macha allah sama xel dala dala dala dala dala dal ba bëgg a dee barki Serigne Fallou Mbacké billaahi wallaahi wa taala sama xel dal daal ma ma ci combat benn yoon xam mm-hmm. li ma la wax mm-hmm. moo tax ni ma doon waxee ma di ko waxee ndax xel moo dal mm-hmm. ndax dafa dalal sama xel ndax damaa gis si loo xam ne ci moom lu ma gëj a gis ma xam ne kii bëgg na combat bi am na fu mu teg combat ak xale yi ni ñu koy toppee Lamine papa xale yi koy toppee ni ñu koy toppee loo jàpp ne mooy daan Papa Lirou lan nga jàpp ne est-ce que yaa ngi may dégg bu baax bu baax a kay ndax xam nga lu tax waaw booy bi da xool fi mu jógee te saa yu jógee mbooloo mi day gën a yokk xam nga loolu loolu loolu dafa loolu Lamine dafa nekk lu garaaw loolu mooy tax booy bi di rey boppam ndeysaan. pour yow papa lan moo koy daaneel. waaw loolu nag Lamine euh, man fi mu ne nii ba léegi man affaire daf ma def kaa waaye dama yaakaar ne man rek cat la rek man loolu laa ko jàppee ah cat laa ko jàppee ah man cat laa ko jàppee voilà cat laa ko jàppee waaw loolu laa ko jàppee ah. du hmm. leneen loolu man loolu rek ko jàppee ah. du ay du ay li mu war a def yëpp def na ko ci làmb. du ay mbir comme ni ko nit ñi di waxee. non xam nga nit ñi moom kenn mënu leen tee wax nit ñi kenn mënu leen tee wax am na loo xam suy amee ñoom ku nekk na nu nekk na koy gisee ku nekk at na ngay gisee ak ku nekk na ngay waxee. Mhm. waaye daal man lu ma ko jàppee daal lu war a am la am na waaye yàlla na fi yem yàlla na jeex waaye l'essentiel benn affaire day am daal loolu daal la ma bëgg ne day bàyyi bëri. nga ne day lan. day si si si day bàyyi. day bàyyi bëri. loolu de ah information la si si si si si. mais bu bàyyee bëri lan lay def liiru. non waaw papa yàlla mi yàlla mi ngi koy dimbali. booy bi day liggéey. Mm-hmm. di yar ay jur di daan dooleem. xam li ma la mm-hmm. ah, nekk xale ba pare teel a ñàkk waajur wu jigéen waa ñàkk waajur wu góor xam li ma la mu nekk bañkat nekk ak ay. mais mais bàyyi na bëre actuellement nii kon mën nañu wax ni papa booy jëne bàyyi na bëre. si si bàyyi la kay waaw. mais bi nga demee bi nga demee moom da ngeen cee wax mu mu ni day bàyyi woon loolu man maa ko wax man wax naa ko man sama bopp ko wax ko ci ma waaye man maa ko wax day bàyyi bëri voilà. ah li mais. day bàyyi bëri. liir loolu dina day waar de loolu loolu. non non c'est normal ndax xamul tax lii ken xamul lan la. kenn xamul lan la kay. kenn xamul la kenn xamul lan la moo tax daal man daal maa wax jël di show boobu daal koy wax ne booy <laughs> it day bàyyi bëri de foofu bàyyi ah yàlla baax na. ndax xam nga lu tax. waaw booy bi xoolal mbooloo mi koy topp. Hmm. ak booy bi li muy daj ci kombaam. te kan laa gën a yërëm man ci làmb ji jabar ci. billaahi sonn na ci làmb. parce que Serigne su booy bi amee komba dootul lekk dootul naan fu ne mu ngi koy dugg ndeysaan. wallaay xam nga li ma la ay jigéen tamit ndeysaan xam nga. xam yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg. voilà loolu moo tax daal man fi daal Assane Baye os làmb ji daal. loolu laa gis man loolu laa bëgg ndax moom yàlla nga koy dimbali yàlla nga koy teral te amee ko ci làmb du dëgg. jërëjëf. voilà loolu mooy affaire bi daal man loolu laa lool daal laa bëgg man fi mu ne taate incha allah rabbi loolu mooy am soobu yàlla. incha allah xam naa semaine bi dinañ dinañ def benn plateau fii incha allahu rabbi. waaw waaw. Alioune Seye bëri waaw tamit nag dimanche nag dimanche. dimanche waaw dimanche kii ah, ñëw dimanche nag dimanche nag dañ cee war a wax nag. ah dimanche kii kay mosuñu cee noppi. Ah, ah ba xam naa ne waaw sama rakk jee ñëw Baye Fall bay ñëw de. Eh, li Coens kii Coens. kii Coens. Coens sa bari doole. Coens sa bari doole. waaw yow dimbali ma nga. Coens sa bari doole Coens sa mën a xeex. non non Lamine xoolal nga ne lan. Coens sa mën a xeex. loolu fii la fii la wulee ñaay. Coens sa mën a bëre. sëriñ bu ñu dem naan teel leen loxo Aliou Seye. Coens sa mën a bëre. Coens sa mën a bëre. Aliou Seye ndaanaan la. Coens sa mën a bëre. yow xam nga Alioune Seye. baax a baax fit. waaw ah, ab Baye la koo xam ne ndox mu tàng day tege mu jël gi tàng mu ñëw jël war koo naan xëppoo moom la dëppee kooku Baye Fall la. open presse bi kañ la Baye Fall la. open presse ah, oh, suba suba la de suba. teere màgg daan. waaw ah, bu ko woon si tey bu ko woon si bi tey la. waaw suba la moom teere màgg daan. suba ko invité na la. man kan lay invité. yow kan lay a ko ba kontaan naa si yow su dimanche dañ kontaan naa si yow mon ami. jërëjëf après la cinq ko fàtte tamit de. du ma ci fàtte benn le premier drapeau Vatican. Ah, waaw drapeau Vatican day sànn kooku Baye Fall la sama waay la. nee naa nee na di nee na nee na dina la gunge ci sa drapeau kon yow na nga ko gunge ci sa drapeau. ndeysaan ndeysaan. waaw ndax ndax bëgg dama comprendre ndax jour boobu buy ñëw nga nga gunge ko buy dugg si ci làmb ji bëgg naa tey bëgg naa ñu invité waat leen ku ci nekk mm. nga wax ci sa drapeau wax ñu ngi mm. ciy woo mm. waaw dëgg incha allah loolu dañ ko def ci semaine bi waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu am na solo drapeau drapeau Batika bi ak drapeau Lirou Diane ñëw bu delsee mm-hmm. le premier mai Alpha Youssou Ndour Alpha mm-hmm. bés Mourou Baye Fall moom production moom. waaw ah. nga wax ci en attendant comme adversaire kii ñëw na. Darso lan nga ñuy wax ci bés boobu noonu. waa bés bi moom euh, Lamine defuñu lu dul di si woo amateur yëpp parce que tamit bis bu nekk am na fi waaye wax dëgg yàlla moom mooy boroom ñaari lundi yi. parce que mhm. bul fàtte ne bi muy dugg si làmb lundi la njëkk a làmb si diggante Youssou Ndour ak caatu Daouda Fall. loolu tamit yàgg na si organiser waat na beneen lundi aussi. tamit ci diggante Kaw Gourdin troisième lëndëm daal mu ngi nii waaw daal moo nekk nii. yàlla na ko jik macha allah tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla na ci am réussite. mais bés ba riis na. waaw trop parce que tamit boo xoolee premier combat bi ñu ngi jëm ci diggante xale bi nga grande Grand Dakar gi la dëkk ñu naa koy Zumb déranger muy champion boo xamante bi nii wax dëgg yàlla depuis mu jógee si nattu bi ba tey macha allah koñ bi bëgg nañ ko te gaa yëpp ñu ngi waaj combat am. Mhm. rek mi ngi bëgg a commandé cinq bloc mais ñoo ne ko bloc yi